dafa demone ñu invité ko invitation ba neex lool waaye ci biir waxtaan wi bañ ko poser question ni ko lo xam ci réew mi mun leen tak tak rek nee nañu yéemu ci wax jooju wax biñ ko laajee lu tax mun leen am réew daal bu boroom xam-xam yi jubawulee déggoowuñu di rayante di rayante di werante di soow xol yi ànduñu loo gas ñu suul xam nga fu muy mujjee rayante rek nee na moo tax nag ñu ne sëriñ bi nee na muy dénk boroom xam-xam yi parti politique yi këri diine yi yépp wax rekk ak def loo xam ni nii jàmm réew mi lay indi jàmm lay indi nee na nag sëriñ bi nee na ñu ngi ci rawatina këri diine yi sëriñ bi nee na mas wax ni yéen parti politique yi def leen ni diine ji def bokkuñu tariqa waaye ku ci xewle ña ca des ñépp wàll si doo ci xàmmee kenn nee na leen bu ngeen ko defee rek jàmm am sëriñ bi nee dafa mel ni loolu dégg nañ ko waaye tuuti la xiiroo bi daal ak ŋaayoo bi ak werante bi ak xaccoo bi ak bañ yenente yéenante jàmm nee na bari na fi lool sëriñ bi nee na ñuy ñaan rek nag ñu seetaat xel yi nee na dafa am benn woykat mu ne am xel bu dee bënnub teen sago moo ko raw ne ndax dégg nañu wax bi am xel bu dee bënnub teen sago moo ko raw labat leen seenum xel ci jamono jooju lañu nekk léegi ku nu nekk di fóotum xel di xóotum xel di science di xalaat science boo xam ni jëmewu yow mi koy def ci kanam jëmewul réew mi ngay nekk kanam loolu lii nag am sago di xalaat lu rafet di ko def moo dem nee na ñun nag nee na suñu wax par rapport ak kilifay diine yi nee na mi ngi mel ni nga dem ci géej samp sa loxo ci ndox mi la nga simpi mooy sa wax la ca des mooy waxi kilifay diine yi Touba wax na Tiwaawan wax na Njaasaan wax na Laayeen wax na Xaadir wax na ñoom ñépp wax nañu ñépp ñi ngay dugal nit ñi ci jàmm ak bennoo ak teey ak dal nee na ah kon sëriñ bi nee na moom waxam nee na foofu rek la koy wéeg nee lu ñu wax rek ñooma lu ñu wax rekk ci la ñuy jéem a tënku di ñaan nag ñi ci des ñépp tënku foofu nee na sëriñ bi nee na bu ñu ko defee rek jàmm am مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على